mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk yi nga xamante ni bi yéenay seetaan Teranga Sénégal TV TSTV seen mbokk Alioune Mbaye ci seen émission dunduk sëriñ bi xayaatu Cheikhul Khadim ñu del siwaat di leen nuyu lu bare bare bare bare te di leen ziyaare nuyoo boobu nag muy nuyoo lislaam di nuyoo waa àjjana yàlla sunu borom def ko muy nuyoo xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen koy nuyu nuyu teey waaye di leen ko nuyu nuyu bu rafet seen émission dunduk sëriñ bi xayaatu cheikh al xadim ngeen baaxoo ci ànd ak seen mbokk Alioune Mbaye tey ñu koy defee ci jamono ju ama amam solo mooy lan mooy jamono ji nga xamante ne bii ñu ngi séentu weeru cheikhul xadim mooy weeru safar safarul xayri kon mbokk yi ñu ngi leen ci nuyu lu bari te di leen ziyaare di tàmbalee ci nuyoo bi ak ziyaare bi xalif généraux yi nekk ci réew mi yépp di ñaan yàlla sunu borom yàggal leen te mu ànd wér yàlla borom bi subhaanahu wa taala nangu seenub liggéey bi xormati nabina muhammad sallallahu alayhi wa waaye ñu jiital ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ndokkeel bu baax a baax tey ñaan yàlla màggal gii muy waajal sunu borom yóbbuñu ci jàmm te jullit yépp fekk ko ndax màggal bésub lislaam la waaye weeru safarit bésub lislaam la weeru lislaam la mbokk émission xayaatu Cheikhul Khadim bokk ci liñ leen ci doon wax mooy rek li sabab ñu tuddee émission bi xayaatu Cheikhul Khadim muy lu am am solo li am am solo mooy moom de xam nañ ni yàlla sunu borom dafa digg dafa diggoon jullit yi xayaat yiba yàlla sunu borom dafa waxoon ni am na ñoo xam ne faaw ma defal leen dund gu teey waaye faaw ma fooy leen fay gu rëy rëy boo xoolee nag Cheikh Ahmadou Bamba sunu borom da koo may dund goo xam ni nee na kenn mësta dund dund gu doy noonu waaye borom bi it fayee ko loo xam ne mësu koo fayee kenn. te xam ngeen ni suñu lislaam ji dafay tiitaroo nit ñu baax ñooñu nga xamante ni bii dañoo joxe misaal mu réeréere ci ngëm yàlla xuwatul imaan dafa am nitu yàlla yoo xam ne dañoo joxe xuwatul imaan importance bu réeréy ba alxuraan di leen sadd di leen tudd di joxe ci ñoom ay exemple yu réeréy al istiqaama mooy jub xocc mosoo am benn dëng-dëng mosoo def lu amut njëriñ moom sëñ Tuubaa kenn da ko caa gañ wut waaye ragal yàlla it nag mu dox ci foo xam ni kenn doxu ko fa moo tax na dëgër ci lislaam ci bi nga feeñee ba ni fi noppee jóge waaye nekk koo xam ne foo toll da ngay défendre l'islam ak di ko dimbali loolu kenn da koo jiituwul ci moom moo tax ñu tuddee jataay bi xayaatu cheikhul xadim moo tax taarixu islam xamul wala taarixul islam bindul jëmm ju mel ni cheikhul xadim abdullahi wa xaadima rasulihi xaadimal Moustapha mu dund dund ko xamante ni bii dund gu yéeme la xam ne lu ñu la ci nettali rek macha allah te bindu ko mu nekk loo xam ne est rek nga ci daal di teg moo tax ñu sukkandikoo ci dundam googu rek jël émission bi tudd ko xayaat Cheikhul Khadim mooy dunduk sëriñ bi te moom daa waxoon ni xostu xayaatan laa turaa li xayri waaye mujizatan baana li usdi xayri képp ku am nopp baax. ba bët yu baax képp ko am xel xam nga ni yàlla sunu borom may na ma dund dund goo xamante ni bii menn mi ne musul dund dund gu mel noonu yàlla may ma ma dund dund goo xam ne ma daj loo xam ni dund ci àdduna loo xamante ni bii deeful dégg ku dund dund gu mel noonu moom sax daa waxoon ni lastu ashuku abadan fii kaw nii jaaral badi ajaban lil kaw ni nee na aw ma sikki sàkk mukk ci nekk gi ma nekk di dëkkaaleeb sunu boroom jaaral di an ajaban lil kaw ni mu doon lu yéeme lil kaw ni ñeel univers bi ñu nekk ñeel àddina ma nekk koo xam ne sama dund lu yéeme lay doon ajab gi sax da caa fekk da caa lëmaale li nga xam ni moom la war a ñëw ci kaw suuf nekk ko nit ku yéeme ñu koy eh, wax ci soixante douze ans soixante quatorze ans ba ci soixante quinze ans ajab waaye nga gis ni mu wax ni it loolu yàlla moo ko defal nag ndamuuma dama koo wax ngir sant sunu borom waaye ngir tudd xéewal goo xam ne yàlla sunu borom moo ko defal moo tax mu waxoo ni aataani allahu fi ruuxi wa fii jasadi maa laa yura siwa zaati bi laa tuhami yàlla daf maa may ci sama may ma ci sama yaram may ma ci sama jëmm loo xamante ni bii maa laa yura siwa zaati bi laa tuhami loolu de kenn du ko gis ci beneen jëmm ba àdduna sosoo ba léegi doo ko dégg ci keneen ku mel ni moom li ko yàlla may ci ruuxam mu mën koo dékku waaye li ko yàlla may ci jëmm mu mën koo dékku moo tax lu ne def na ko fu ne daj na ko fu ne dem na fa yàlla sunu boroom téyel ko ruuxam googa waaye yàlla sunu borom téyel ko jëmmam googu mbokk gis nga lii may wax lislaam ko ciy wax rek jëlal dara ci alxuraan yàlla sunu borom moo diggee woon la mu diggee ab jaam ñëw tax mu def ko te yàlla lu mu digg def ko rek mu fay ko moo tax yomb naa wax lool yàlla borom bi moo ni man amila saalihan min zakarin aw unsa ku def lu baax moo xam góor na jigéen la ku def lu baax daal ku mën di doon man amila saalihan min zakarin aw unsa wa mu'min bu ñu wax ku gëm yàlla koo kookoo doon ku gëm yàlla wa huwa mu'min yàlla nag daan ñooñee fala nuhyiyannahu xayaatan tayiba ñooñee dina leen dundal dund gu teey ku góor góorlu ba def lu yiw di def lu baax sa dund gépp nga sarte ko ci lu baax sunu borom nee na fa la nuxyannahu xayaatan ñoo ñu day dinaa leen dundal dund gu teey dinaa leen dundal dund gu neex waaye nag du ci yem de walla wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu yaalamuun seen yool dinaa leen fay lu gën yool bi ma leen di fay dinaa leen fay lu gën a rafet lañ doon jëf mbokk yi Seex Ahmadu Bamba fii rek la taxaw mooy daa ñëw xam ni fi ne yàlla ku ko defal benn bu baax moo fuy la fukk mu ne man duma fi nekk di def leen yàlla benn sama lépp lu baax laa koy def yàlla nag nekk buur bu mën a fay jël yooyu mu daan def nag faye ko ko moo tax léegi loolu alxuraan moo ko wax yàlla na ko yàlla fayal mbokk moo tax weer wii bu teroo muy weeru safar moo wax ni yàlla sunu borom moo ma ci defaloon nga ñaay lu rëy rëy waxoon naa fi nii yàlla borom bi nitu yàlla ku fi mës a andi ci kaw suuf ba ci yonent yi ku ci ne daf laa booleeg sa nooni jamono nattu la moom ñu boole koog nooni jamono muy nasaraan bii waaye loolu ak zahir rek la ba tax mu waxoon ci safar gii nga xamante ni bii moom la ñuy waajal macha allah weeru tedd woow nga xam ni ndeysaan ci la génnoon te tuddal ko boppam xarajtu yawma sabti mi achar li xidmatil moxtaari fii sahri safar génn naa ci sama ndigalu borom dara taxul ma génn mooy damay liggéeyal ki yàlla tànn ci mbindee fi mu gën ci Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon mu wax ni liggéey bi may liggéeyal yonent bi moo tax samay kër wéet samay njaboot tasaaroo xusóori xalat wal ahlu anni tafarraqat li madda xillati anhul madixoo xasiiru tagg gi may tagg yonent bi ak di julli ci moom ak di ko liggéeyal wéetal gi may wéetal yàlla moo tax gisatuma sama njaboot tey waaye samay kër tasaaroo nañ mbokk yi weer wu mu defee yooyu nag ci laa waxoon ni moo wax ni yaa xaayidan lii du duna kasbin wa safar murjila kasbin wa silaahin fii safar weeru safar wii ñu nekk la wax ni yàlla sunu borom may na ma ci loo xam ne ku mus a fàggu dara wut dara ba am ko la mu rëy rëy rëy musoo am lu mel noona ñi mus jël seen ngànnaay di xeex ci yoonu yàlla li ma yàlla may ci weeru safar li ma daa gàcceel loola la ma yàlla may murjila kasbin wa silaahin fii safar waaye nee na sax nag yàlla sunu borom dafay bëggal sama lépp ci weeru safar sama lépp yàlla da koy bégal ci weeru safar yàlla far na samay lor su ma doon bàkkaar yàlla jéggal ma samay bàkkaar maha ya man zunubi ya far waaye nag mu bashiran kulliyati inda safar sëñ Tuubaa nee na ba weer wi teeroo rek yàlla sunu borom lépp lu ma da koy fulandi da koy duble rek joxaat ma moo tax nag nee na sama lépp day bég ci weeru safar mbokk weeru safar mooy weeru sant yàlla xam nga nag yàlla nag daa waxoon ni wax xalilun min ibadiya shakur sama jaam ñi ñu néew ma ciy sant waaye sëñ Tuubaa jël na weeru safara def ko weer woo xam ne dafa bëgg jaam ñëpp di ci yëg sant suñu borom ndax alxuraan ne na fa in ta'uddu ni'matallaahi laa tuhsuuhaa xéewal gi yàlla defal doomu aadama bu ko doon lim yàlla lim la defal ci xéewal boo ko doon lim doo ñee kenn boo ko doon lim mën nga dëkk di sant yàlla te doo ko jot mbokk yi ndax yéen ci kenn ku ne ci ñun mus naa dégg rek ku ne facture bët li mu xool ci kaw suuf dañ ko ni da koy fay li ngay dégg doo ko fay mukk li ngay dox kenn du ko fay sunu borom alxuraan nee na yàlla xéewale mi kenn mënu koo sant ba jot ko ma ni énergie bi la yàlla jox nga koy wax bu weer dee woon ñu jox la ni li nga war a wax ci weer yi da nga ko war a fay cheetetetet kenn du ko mën ci ñun te yàlla moo ñu may loolu mën a wax rek xéewal la gu ñuy sant sunu borom subhanahu wa taala moo tax nag sëñ Tuubaa ni man yàlla ubbil na ma buntu cant fa taxta baaba shukrin fi safar ba tayeba nafsin doona doona dorrin aw safar yàlla sunu borom ubbil na ma buntu sant yi waaye nag ci weeru safar yàlla mi nga xamante ni bii teyal na sama lépp lépp lépp ak sama lor ci safar mbokk xam naa tey dañoo tànn lu ama am am solo waaye mu laaj nag dégg gu ama am solo muy xam ngeen ni képp ko wax weeru safar di waajal 18 safar màggalu Cheikh Ahmadou Bamba gi nga xam ne dafa waxoon ni kaay leen santale ma ci yàlla li dala ci ganaar ba ci gëléem lu ko waa lu ci waay man rek na ko def ngir santale ma yàlla ndax lan mooy yàlla lim ma defal ci bis bii sabak cant bopp da caa doyatul ma bëgg mindee fi ñëw sante la ma sama borom mbokk nag tey ku wax màggal gi wax safar faa nga wax tukki sëriñ bi muy tukki boo xamante ni bii nee na ba léegi mooy tax ñuy toog ci Teranga senegal TV yi di waxtaani tukkib sëriñ Tuubaa boobu ñëpp di ko dégg mu bees tàq waaye di neex lool ndeysaan tukki boobu rek ngay nettali ci àddina nga gis ki koy nettali àdduna ak li ci biir nit ñi di ko jox ndax lan mooy tukki boo xam ne daa am njariñ tukki boo ama am njariñ mbokk tukki boobu nag nga xam ni daa waxoon ni ndeysaan jitu maa jiitu bi xuufas ñëw waaye dinaa siri ci bu dunde Cheikh Sadou Abi moo waxoon ni sëñ Tuubaa de li mu defal yàlla ci géej gii liggéeyal fa Muhammadu Rasulullaahi ba yomal xayaamee bu ñu ko séddalee mbindeef suñu borom yi ab yéeféer sax mën na cee amee lu tax du dem safara kon tukki bu riche la léegi nag mbokk yi dama indi tey ci émission bi nga xam ne mooy xayaat Cheikhul Khadim ñu waxtaane asbaabul xafiya asbaabul xafiya mooy sabab yi nga xam ne moo tax sëñ tubaa tukki mais ñu génn ci tubaab yi génn ci ceddo yi génn ci ràmbaaj yi génn ci ñu ko iñaane woon ñu seet rek digganteem ak boromam lan moo taxoon mu tukki loolu mbokk yi dinaa ci teg sama baaraam waxal la ci fukk yoo xamante ni bii du du mbirum àddina waaye loolu digganteem ak boromam bi subhaanahu wa taala loolu mbokk yi bi ci njëkk moom sëñ tubaa ci boppam yàlla dafa def mu amoon ar raxba fi taqiqi al ubudiya al kaamila lillahi taala dafa feeñ rek amoon yéene jaamu yàlla ci kaw suuf lu ko kenn mës sa jaamu dafa feeñ rek mën loola moo tax loo ñuy wax maarifatu billaahi ak wusulu ilallaahi ak yaqin moom mësta dañ di nekk ci jëmmam ji diiru mu feeñ rek min sigarihi yi kibarihi looloo waroon mboolem turuqu suufi yi mboolem tariqa bu musa dégg rek sëñ Tubaa dem na ca mar yàllaa taxoon mu dem jël wirdu woowa du ko wird di wut yàlla daa feeñ rek wirdu wu ne rek mu jël ko waaye yoonu suufu yu bu ne rek sëñ Tuubaa soobu na ko am na bis boo xam ne daa gisoon booba mu ngi ci daaree baayam Mamour Anta Sali gisoon benn taalibe Cheikh Sadou Abi sëñ bi naw ko lool ndax ni muy solo ak nitu yàlla ngi mu doon kilifa googu it gis ko lool xam ni kii bu gisoon Cheikh Sadou Abi li mu bëgg ci yàlla mën naa gaaw lool mu ne day laxas dem Mauritanie waaye keroog Mamour Anta Sali moo ko tere woon ba yoon wala ci xew ñun ñëpp xam nañ ko. loolu nag li ma ciy joxe exemple mooy moom dafa feeñ rek bëgg a yegg ci yàlla foo xam ni kenn mu bëgg faa yegg kenn mosu yegg waaye bëgg xamee yàlla noo xam ni kenn mosuñu koy xamee moo tax nag bi mu demee ba jaar ci wérdu yooyu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mu mujj lu mu ca laal rek day naan woo xam ni da koy dolli ak mar lu mu ca jëfandikoo rek day mel ni day gën a mar yàlla mu mujj nag bàyyi yooyu yëpp yëpp yëpp doyloo alxuraan ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bujj sëñ tubaa lu dul alxuraan ak yonent bi dara doxatul digganteem ak moom te gis nga wax ji ma wax moo waxoon ni walam azal munzu aqaltu taaliba maariftu billaahi jalla taiba musumaa deñ diirub ma am xel musumaa deñ doon koo xamante ni bi damay sàkko yàlla mu kawe yàlla rek laay wut yegg ci moom fa jalawtu bayna al ulama wal awliya bi niyati wa amali wa xawliya moo tax nag ma doon wër ci boroom xam-xam yëpp di wër ci nitu yàlla yëpp ànd ak yéene ànd ak jëf ànd ak sama wax ju rafet loolu nag li taxoon moo mooy mooy dama bañoon sama dund sànku xam mbokk yi am na ñu fi dund dund goo xam ni mat na téeméeri at waaye dund gi lépp daa neen sëñ bi nag nee na man li kay laa li kay laa yuddi umri at aba dama doon bañ sama dund sànku ba pare ab du am coona bu am njariñ li xos ni seen xaay dañ lexti saaba nee na nag bi ma nekkee ci loola bi ma feeñee nekk ci loola nekk ci loolu lu baax lu ne ma nekk ca te lu ma nekk rek mu mel ni kàddu suñu borom gi duma ci doyal lu ma nekk rek di gën a mar yàlla suñu borom nee na xattan saraftu ama ay sasin ila xidmati xayril xalqi saaxibil ilaa mu mujj nag 1301 1301 nee na ma mujj soppi sama lépp jëmale ko ci liggéeyal ki nga xam ni moo gën ji mbindee fi Seydina Muhammad sallallahu alayhi ma jël sama lépp jëmale ko ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi kon gis nga benn ngoog li tax sëñ Tuubaa dem ci géej gi mooy dafa mujj jël léppam bëgg a yegg foo xam ne dafay liggéeyal yonent bi liggéey boo xam ne da cay wéet moom kese ci kenn ko jàppale kon loolu yàlla la ci doon wut bi ci des mooy araxba fii xidmatihi xidmatan saniya liggéeyal yonent bi liggéey boo xam ni dafay bokk ci ñi gën a màgg ci liggéeykatu yonent bi ba yàlla sunu borom nangu loola ndax nee na xemmem gi ma xemmemam liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax dama mujj nguurug yàlla gi moo ma nome nguurug suñu borom bi moo ma nome ma nekk ci ñi gën a moom man doon koo xam ne maa gën a kawe ci ñi liggéeyante bi sallallahu alayhi moo wax ni mulkul ali baaxil xadiim jaalani asnal xadiim liman lahu fadlun yadoom wasaanani fi qidami nee na nguurug yàlla gi mulkul alil baaxil xadiim nguurug yàlla mi nga xam ni moo fi des jaala ni asnal xadim moo ma def ma doon ki gën a ko ci liggéeyal liggéeykatu yonent bi mi nga xam ni ngën lépp ci moom la saxe waaye wasaane nii fi xadami yàlla it nag liggéey ba ma ko liggéeyal waaye waaye yàlla ñongal na ko de yàlla nee na lu ko kon gis nga deuxième bi ma lay tegal ci sabab yi mooy mu ngi noona sëñ Tuubaa bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo yéene woon liggéeyal ko liggéey boo xam ne 1301 la ko noté di ko ñaan yàlla suñu borom waaye yàlla mu ngi ko nangul ñaan gi 1313 ci gàddaay gi 1313 nag mooy ama jay chachine waaye 1313 mooy 1895 te ko wax màggal gi rek wax 1895 keroog ci weeru août wi ñu nekk 10 août ca lañ jëloon sëñ bi rek bind décret bu ko yóbbu Gabon waaye gis nga kon liggéey boobu mënoon liggéeyante bi maa la wax léegi ne 1301 ba 1313 yàlla sunu borom soog koo nangu moom sëñ Tuubaa tubaab yi 1895 la roofoog ñoom waaye toog na 12 ans yoo xam ne fukki at ak ñaar yoo xam ne nee na maa ngi ñaan yàlla ñu jël ma yóbbu ma foo xamante ni bii lekk ak naan sax duma ko tal waxuma laak nelaw waxuma laak nuyu di jàmma sante ma jàmm fa yàlla nu ko kenn mu sa jaama waaye ma liggéeyal fa muhammadu rasulullah lu ko kenn mu sa liggéeyal moo tax ma waxoon ni awwalu mabtada bihi alxadimu taan lahoo taan laqun bi man lahoo taqdimu li nga xamante ni bii liggéey côté yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xaadimal Mustafa li mu njëkk a def mooy aju ci yàlla mi nga wa azharal xidmatan ama jay shashin waaye waqal buhu atmaraha min asasin nee na liggéey bi kat yàlla mu ngi ko feeñal kon nangoo ci 1895 1313 ci gàddaay gi waaye nee na fekk man maa ngi ko doon ñaan ci sama xol ca ay sasin 1301 waaye nag nee tubaab bi duñ ci dara de sëñ tubaab moo jàppoon tubaab bi nga ñaan sëñ tubaab bi ko tubaab bi jàppee yóbbu ko Gabon ku mës a dégg nga wax loolu mun la bul waxte loolu tubaab bi maa leen jàppoon moo tax bi mu demee ndar ba kilifa gu baax googu ñëwee ndeysaan ni ko da koy ñaan intervention ba mu ñëwee di ko rendre kon sëñ tubaa da ko ni xuloo boo koy arrangé soo bëggee mu jub da ngay seet ci ëpp doole nga tàmbalee ci moom mooy da ngaa njëkk a dem ci tubaab bi te ma ëpp boobu benn nit la 34 kilos lay peese nekk nit ku ñuul nee na tubaab bi duñ ci dara moo tax bi ma jógee ci géej gi afawtu anil aada yi turran li wajhi man ñoom ñépp jéggal naa leen ngir suñu borom waaye gis nga dafa wax ne wa adxalal ilaahu fii xulubi man tasababu fii naqli zaaka zaman yàlla sunu borom moo dugal ci ñi nga xam ne ñoo may jël fii di ma exilé moo dugal ci seen xol yi loola waaye defuñu dara ñoom waa ixraajuhu ilal bilaadi naaya jël nañ ma yóbbu ma ci réew yi sori ya xam nga ni Bawol ak Libreville ak maa yombaak matadi foofu sori na lool ixraajuhu ilal bilaadi naaya génne nañ ma yóbbu ma ca réew yi sori ya waaye wànnaa la fiiha fawqa samri saariya amee naa fa loo xam ne day moo gën a kawe déggug saariya ga déggug saariya ga déggug saariya lu kéem taanu ci lislaam la saariya dafa fekk jamono Seydina Omar ibnul Xataab daa toog Seydina Omar da ko yebal mu dem xare mu toog ci kanamu minbar gi moom Seydina Omar te kee xare bi mu dem ba ma doon wax rek distance rek nga comprendre fi Seydina Omar taxaw ci kaw biir jumaa ji ak fa mu nekk mat na 1000 kilomètres waaye bi ko noonu wëree nar koo bett kàddug Seydina Omar moo ko fekk fi mu taxaw moo ko ne asaariyatul jabar nee na mu dégg kàddug Seydina Omar googu ba tourné mën a jàkkaar ak noonu mucc ci ñoom bi mu ñibbisee ca xare ba def 2 mois wala 3 mois dafa jubal Seydina Omar ne ko ay budu woon ak sa kàddu googu nga ma woon ni ma moytul montagne bi sëñ Tuubaa nee na man gaa yi génn nañ ma yóbbu ma ci réew yu sore man tumaranke fa tumaranke gu métti waaye de amee naa loo xam ne moo gën a kawe déggu saariya googee kon mbokk gis nga kon liggéey boobu mu ngi noona ba ci des am na mahadatu sirriya mooy loo xamante ni bii it digganteem ak boroomam ak muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa mbokk yi loola sëñ Abdou Lahad mii moo ñu ko nettali sëñ Abdou Lahad moo nettali fii nee na sëñ Tuubaa dafa def intikaaf i'tikaaf mooy fukki fan yi mujj ci weeru koor nee na ci biir jàkkay daaru Xudoos jooju rasulullahi sallallahu alayhi wasallam feeñu ko fa ànd ak saxaaba yi mu ne ko dama bëgg a bokk ci ñii loola nag taxoon na 1312 la ko def ba loolu moo taxoon muy wax waxam googu waaye nag loolu lu mu teg la ndax dafa taxawoon wax ni asiru ma al abraari xiina asiru wa zanna al ida anni hunaaka ndar gii la waxe loola jox ko sëñ Modou Ndiaye maa béy ni ko déw ma fenn yaa may seede damay dugg ci géej gii liggéeyal Moustapha sallallahu alayhi yow sax maa lay garanti li fekk may ñëw doo fi feebar doo fi faatu jox ko xasida gii asiru la muy wax mooy asiru maal abraari xiina asiru maa ngi dox ànd ak ñu baax ñi te ahlu badrin la ci jublu asiru maal abraari xiina asiru jamono ju may doxe rek maa ngi ànd ak ñoom waaye nag wa zannal ida an nii hunaka waaye nag noon yi ma àndal dañoo jàpp ne ab prisonnier ñaare seen biir waaye man wéetuma ñetti téeméer fukk ak ñett yi xare woon badar maa ngi ànd ak ñoom masiri mahal axyaar yi maa ngi dox di ànd ak tànneef wax lillahi wahdahu waaye sama dox nag maa maa ngi ci maa ngi dox ngir yàlla rek ahlu badrin goog nga xamante ni bii moom la waxoon dafa bëgg ci ñoom daa mujj waxoon ni shahada lillahu bi anni wahidun min xaafa min ni jaahidu am na maa naxa ni jaahidu kon gis nga loolu mooy ñetteelu li taxoon Cheikh Ahmadou Bamba xadimal Moustapha ndeysaan dem ci géej gi te mu bokk ci sabab yi nga xamante ni bii dañoo nëbbu mbokk ñeenteelu sabab dama lay tegal ni la sëñ bi dafa yéene woon alhijratu wal jihaad alhijratu mooy gàddaay ci yoonu yàlla day lu am tuyaaba waaye jihaad fi sabilillah it dara gënu ko màgg ci yoonu yàlla sëñ tubaa nag tukkeem bi da cee dugalaale al jihaad waaye da cee dugalaale al hijratu gis nga diirub hijratu boobu ilallahi wal jihaad fi sabilillah loolu dafa nekk loo xamante ni bii ndigalu suñu borom la benn min awamirillah yàlla moo ko digle ñaareel ba mooy jëf la joo xam ne yonent yëpp daanaka def nañ ko al anbiya wal mursalin ñëpp def nañ al hijrat def nañ ay jihaad fi sabilillah waaye saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom tamit jihaad nañ gàddaay nañ ngir yàlla te sëñ Tuubaa ñooñu rek la tegoon bët moo tax boo seetantalee tukkeem bi bi mu déparee Mbàkke Bawol dem Daaru Salaam ba ni mu wéete ci Tuubaa ba ni mu demee sanc ah kon mu ngi noonu niyatul jihaad mooy bëgg rek jihaad fi sabilillahi moo tax ma wax la ci biir Mbàkke Baari rek ci tukkeem bi bi si waral màggal gi bi mu jàkkaarloog noonu rek nee na aaya ji may wéttalikoo xam nga sëñ ci wax naa la léegi mani la tukkeem bi nee na téere yàlla bi rek lay àndal ak yonente bi ak saxaaba yi moo tax alxuraan aaya da daan sotti ko ci kawam ñu koy waxe mu di ko dégg moo tax gis nga bi mu demee ba jihaad ji jeex marxalatu jihaad ji mooy def na alhijratu gàddaay na ci yàlla ba yàlla fay ko lii nag mu des marxala jihaad bi mu demee rek ba séenanteeg noonu yi génn mbàkke baari fa yéenee dajeeg ñoom ca la wax alxuraan ñëw ci moom ni ko yaa ayu lazina amanu iza laqaytumu lazina kafaru zaxfan fala tuwalluuna al adbaar waa Badar lañ leen waxoon mooy yéen ñi gëm yàlla su ngeen jàkkaarloog ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla nee na bu leen daw te bu leen wane ginnaaw benn yoon bu leen wane ginnaaw sëñ Tuubaa daje ak armée française gouvernement France la jàkkaarlool ndeysaan nee na alxuraan ñëw ci man ni ma lii rek a xew yéen ñi gëm daal bu ngeen dajeeg ñi weddi bu leen wane ginnaaw mukk waaye nee na aaya ja di wax ne yaayu lazina amanu laa laqaytum fi'atan fasbutu wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun yéen ñi gëm bu ngeen dajeeg kuréel bi nga xam ni dañoo wedd yàlla nee na na ngeen dëgër de waaye nag li fi nekk rek mooy wazkurullaha kathiran laallakum tuflihun na ngeen di tudd yàlla ndax ngeen mucc sëñ Tubaa fu mu ne ci yoonu géejam gii ndeysaan alxuraan ji rek day dotti ko ci moom nee na ba ma nekkee ndar nga xam ni dinaa ñëw ci digganteem ak Mbàkke Baari ba jeewal ba ñun dugg ci biir géej gi waaye nee na gis nga bi ma jàkk bi ma demee ndar rek ba jàkkaarloog tubaab bi ñu woo ma ci conseil privé bi nee na war ma àtte nee na lañ waxoon yonent bi rek nee na la alxuraan ñëw wax ma loolu wa bi yamkuru bika lazina kafaru li yusbituuka aw yaxtuluuka aw yaxrujuuka wa yamkuruuna wa yamkurullaahu wallaahu xayrul maakirin yonent bi ba gaa yi toogee ba gaa yi toogee daaru nadwa di ko kompaloo ci luñ ko war a def ñi naan nañ ko rey ñi naan nañ ko tëj ñi naan nañ ko exilé sëñ Tuubaa na ba ma nekkee ndar conseil privé bi toog di xalaat lu ma war a def nee na aaya moo ñëw ci man ma xam ni kon la daloon yonent bi moo may dal yonent bi la daloon mooy dañ ko génne mu génne màkka jëm Madina waaye nee na ndeysaan tubaab yi lañu ñu jëloon décision mooy nañ ko rey ñu ni ah moom day ko ko xool kaw ba suuf loo gis ci jëmmam ji lu jar rey te ko ko rey it nag àdduna wuy si na ko wuy koo xam ni nit ñi dañ xaru sa kaw ñu ne nañ ko tëj fu ñu koy tëj ñu ne ndar ñu ne bu ñu ko tëjee ndar ñëpp da bàyyi seen dëkk ci daan ñëw dëkk ndar ndax nit ñi cofeel gul am ci moom ñu xalaat xalaat nu ñuy def ñu ne nañ ko exilé waaye nañ ko yóbbu Gabon am nañ eggoon nañ sax bu ñeenteel mooy nañ ko bàyyi mu dem ndax kii ku ko xool xam ni liñ bëgg bëgg ko li mu bëgg bëgguñu ñoonu waaye ab ràmbaaj moo ni ku doy nii ñëw di julli suñ bureau bii ñu woo convoqué ko mu toog bu heure ko neex mu ñëw ba sax yëgul <laughs> faale wuñu daa kaabar du julli ne ci boppam kii ku ko bàyyi daal ñu toroxal waaye gis nga nag alxuraan jàngoog ba sëñ Tuubaa mu nekk ci géej gi yëpp alxuraan di wax ak moom ba nañ ko égliser yaa la lazina amanu xaatilu lazina yuwalluna minal kufra minal kufaari wal yajidu fiikum xilsatan waalamu anna allaha maal muttaqin yéen ñi gëm nag waaye li ngeen war def mooy na ngeen jihaat ak ñi nga xamante ni bii dañoo weddi yàlla suñu borom waaye yàlla it mi ngi ànd ak jaamam ñi nga xamante ni bii dañ koo ragal mbokk xam nga ni tuddal naa la ne la sëñ bi lii jihaat la doon jihaat ju rëy rëy ci moom jihaat ji nag moo koy tuddal boppam yoonu géej gi jihaat ji moo koy tuddal boppam waaye nag sëñ Tuubaa ba léegi kenn demagul ci benn musée wala kenn demagul ci benn bibliothèque ñu génn la jaase joo xam ne nii la moom la yóbboon ci géej gi wala puso wala fital gum yoroon ndax lan nee na man inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqaa ci ñaar rek laay jihaate du ma yor benn arme looy jihaate mu ne xam-xam ak ragal yàlla xam-xam ak ragal yàlla moo tax jihaat na ci xam-xam ak ragal yàlla loo xam te ni bii li ma waxoon émission bi dunduk sëriñ bi lay jàngale xayaatu Cheikh al moom gisagoo koo xamante ni bii ñëw na ci àdduna ba jóge fi ni man du jël ngànnaay say noon yor lu ne waaye moom mu ne inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqaa moo tax nee na si nga sama xalima googu sa mbootu xalima raw dobu su muusaa te waaye dee ya nga dekkoon tëwoon na Isa loolu la ko sëñ Muusa ko wax sa xalima gii nga yor di ko bindee moo gën a foor kënoo waaye gis nga nag ñi nga dekkal ne yont yàlla Isa ne ko sunu borom maye woon mu mën a dekkal ñu faatu yow waaye dee yi nga dekkal te woon na Isa moo tax mu wax ni jaahattu bil xatti na wax di man lam yokkoon mu waxe dan za jax di nee na jihaat naa ci bind jihaat naa ci sama xalima ak sama daaj yi na ay at yu baree baree bare yoo xam ne ñi ma àndaay fital lu ne dóor nañ ma ko ngannaay lu lu ne def nañ ma ko Hmm? waaye nag nee na man ci sama xalima gi rek laay jihaate indi ujaahidu eh, jaahitu bil xatti si nii ne wax di man lam yokkoon mu waxee den saa jax di ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla sama xalima gi rek laay jël di ci jihaat ak ñoom ay at yu baree bari waaye li ci neex mooy nee na man kese maa koy def arme bu amul guerre bu amul arme waaye guerre bu amul mbooloo mooy kenn nit mooy guerre te kenn nit kii guerre yorul yorul arme ni mu nekk kenn te yorul arme it nee na daa mujj sax ni bil jahadtu aduwallahi ashrata awamin bi zikrillahi sëñ Tuubaa nee na gis nga ci sama xalima gii ma yor di bind kese kese kese kese nee na ci laa jihaat ak noonu yàlla yi fukki at yoo xamante ni bii lu ne def nañ ma ko musuma ci ciipatu kenn musuma cay xeelu kenn musuma cay jéppi kenn sama xalima rek laa yor nee na ba mujj yàlla son borom moo ne ma tegal xalima gi ndax soo bàyyiwul xalima gi ñoom ñëpp dinañ dee ci ak ak mbas sëñ Tuubaa dañ ko yow nan nga mën a demee di jihaad te amoo arme mu ne am naa arme kay ñu ne ko luy sa arme mu ne tawxiit wéetal yàlla mooy sama arme sama jaasi ji ma yor di ko core bopp yéeféer yi gëmul yàlla sama noon yii jaasig tawxiit laa yor sayfi lazi yufritu laa man sallasu ñii ni yàlla ñett la jaasi ji ma yor di leen ko gore mooy tawxiiduhu man damay taxaw ci seen biir ni leen yàlla kenn la fa huwa ilaahul waaxidu yàlla moom mooy buur bi nga xam ne moom rek mooy kenn yàlla fa huwa ilaahul waaxidu sayfi lazi yufri tula man sallasu tawxiduhu wéetal suñu borom laa jël mu nekk jaas joo xamante ni bii ndeysaan ci lay core bopp noonu yii moo tax gis nga ca ba mu jihaatee ba noppi dafa wax ni jihaadiyan qadaa kon jihaad ji ma lay wax ni la moom la nës ci yoonu géej gi feeñ na ci jihaadiyan qadaa wa rabbi wa wa bay ay rabiha sama jihaad jeex na waaye la ma doon jaay am na bénéfice pertu ma de gis nga li ma la wax léegi ni la yàllaa ko ni bàyyil bind mi moo wax ni jaahadtu dëhëran tawilan jihaad naa diir bu gudd a gudd a gudd gudd te benn ngànnaay nee na ma mujj yàlla ne ma bàyyil ngànnaay li ndax yow sa ngànnaay lii kat moo yor moo gën a foor ngànnaayu gaa yi de te soo ko tegut noonu yëpp danañ faat moo waxoon moo taxoon mu wax ni law anni lam atrukul kitaaba mujahadan biha zawel itaba lamaata bil wabaayi kulla kafirin in lam yatubu li illahi alghafiri lakin afawtu an jamii nnaasi li waji rabbin muhlikal dani man de su fekkonte ni ni bàyyiwuma bind mii nga xam ne ci lay jihaateeg noonu yàlla yi nga xam ne dañu leen a war a yedd nee na kon bu boobaa la kulla kaafirin bil waa bi bil wabaa bi kulla kaafirin maata nee na bu boobaa ñoom yéeféer yëpp dinañ dee ci mbas dinañ dee ci épidémie ñoom ñëpp danañ xëy xëy xëy xëy du ma leen laal de waaye virus leen di dugg ñoom ñëpp ñu faatu la mel ni virus ba fi ñëwoon in lam yatuubu lillaahi gaafirin bu fekkee nañ tuubalul ñu yàlla ñoom ñëpp dañuy xëy rek corona di leen dal bañ xëy ñoom ñëpp dee waaye nag li fi nekk mooy afawtu an jamii naasi man damaa taxaw jéggal naa mboolem nit ñi waaye nag li wajhi rabbin muhlikal xanaasi di ko def yàlla sunu borom mi nga xamante ne bii mooy toroxal seytaane léegi nag ñu ne ko ah mënoo bàyyi bind mu ne nag léegi nag mbind mi moom dama koo jëmee ci ci yeesal diine sunu borom ji dama mujj jëme la ci sama bind ci yeesal diine sunu borom wal aana xad saraftu xatti ila tajdiidi diinillaahi waahibil yàlla mi maye xéewal damaa mujj nag bindatuma ngir jihaat waaye léegi damaa bind ngir jeexal euh, ngir yeesal diine sunu borom ji mbokk juróom-benneel bii may teg sa loxo nii la bokkut ak tubaab yeeg ceddo yeeg euh, rambaaj yeeg ñi koy iñaane waaye juróom-benneel bi tax sëñ bi dem ci géej gi rëfatu bil umma bi ummatil Mustafa sallallahu alayhi wa tubaa dafa doon koo xamante ne bi yàlla àtte def yonent bi kilifaam sangam boobu nga xam ni moom rek la bëgg yàlla cent vingt quatre mille prophètes yi trois cent treize yi vingt cinq yi alxuraan tudd seen tur juróomi ulul azmi ba ci kenn gën ci muy Seydina Muhammad ñoom ñëpp dañoo am yërmaane ci mbindeef yi yoo taxoon yàlla yónni leen waaye yonent bi rek moo ci am wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin moom la ci yàlla wax ni ko dama laa yónni ngir nga doon yërmaande ci jullit yi ci mbo ci ci àdduna bi ci mbindeef yépp nag waaye nag gis nga sëñ Tuubaa mii daa doon koo xamante ni moo gën a màgg ak yërmande moo gën a am yërmande ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga lu koy tegtal neen damaa dem jihaad jihaad ju mat fukki at ma nekk ko ci géej gi liggéey yàlla nee na di ñibbisi ni yàlla dama lay ñaan yàlla ne ah yow de boo ma ñaanee dinaa la may ma ne yàlla yaa maalikal mulk yàlla ni ma ah yow de sa tagg wi neex na lool yow man maay buuru buur ñi yaa man jël an xawadin yow mi nga xam ni dangaa jombanteek di fayantoo ah yàlla ni ko yow di ahmadu sa ñaan gi liggéey ngi liggéey ba am solo tag nga ma tag aw solo waaye solo nga ma mbub mu rafet rafet rafet waaye waaye ahmadu looy teg ci li ngay wax loo ma ñaan de dinaa la ko may mu ne ko irham jami al wara yërëmal mi def yépp yaa haadiyan radaa moo tax gis nga moom daam daam ñeewante ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon lii seede loola mooy laaye biir ak jubal goo xam ne daana ko def xeetu yonte bi ak ñaan goo xam ne daana ko ñaanal njëggal suñu borom xeetu yonte bi ak gàddu gàddu lor yoo xamante ni bii dafa jëmoon ci xeetu yonte bi sallallahu alayhi wasallam mun nangu koo gàddu moom kese yonte bi sallallahu alayhi xeetam wi kenn jëm rek mën a ràmm samaw xeet misla rabia aw mudar yudxulul janna bi shafaati rajulin min ummati misla rabbi an waquda nee na sama xeer yi danañ dugg àjjana ci ci jëfu kenn nit maanaam benn nit rek dana tax ba yomal xëyamee sama xeet yépp mën a dugg biir àjjana mbokk wallahi jëmm jooju dey ku ko moyale sëñ Tuubaa rek juum mooy li mu def defal ko xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax xadis bii yudxilul janna bi shafaati rajulin min ummati misla rabian mu dar loolu ci yéet sëñ Tuubaa rek la dëggoo mbokki xam ngeen ni soxna Fatja soxna Fatja taawu sëñ Tuubaa buy nettali ngoonuk àjjuma yi nga xam ne ci la sëñ Tuubaa waaja ba war fasam woowu tudd awnullaahi dem ci géej gi la soxna Fatja nettali lu am solo nee na sëñ bi da leen a wooteeg bara day xular di ataayal boppam di leen nettali yoonu gaa yu baax yi fi jaaroon ñu ne ba guddi gi xaaj nee na gis ñu génne bagage yi yóbbu ko ca kanamu jàkka ja ca Mbàkke Baari nee na sëñ bi ñu indi fas wi muur ci soow euh, tisi bu ñu ñaan soow te te mu weex nee na dëgg ji fas ya nee na sëñ bi war ni leen day liggéey bii may def ci géej gi rek laa leen bëgg a wax ndax seen ngeen bañ ci am nux nuxu xol ngeen bañ ci am benn naqar ak tiis ni leen képp ko yàlla sunu borom mu sa bind rek lii may defi ci géej gi nii yàlla teg na ko ci saw loos waaye attanoo ko ni leen liggéey bi fa ko sunu borom teg amul kenn koo xam ne rek mosu nga koo yëkkati ba mu wees say oom dis na disaay boo xam ne kenn mosu koo yëkkati ba mu wees say oom bis ni tey nag man Ahmadou mii dama ko fas yéene cas ba àdduna sépp di ko séen yëkkati ko ba ci sa ba ci kaw ñëpp di ko seen lii dong tax. may tumuranke ji dem ci géej gii ni fii may wax ak yéen day folli buurub àdduna bu ñëpp toppoon julli ñaari rakkaa mu ko yomb fii ma toll ci yàlla folli buurub folli buurub àdduna bu ñëpp toppoon julli rakka mo ñaari waaye fol koo xam ne maamam musta yónni kenn mu dem sax julli ñaari rakka gën moo a yomb dama bëgg a dem ci géej gi jaamu fa yàlla ba jox joxasoog moom bañ di lenn waaye liggéeyal fa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa jaxasoo ak moom bañ di leen waaye maqaama ak daraja may dem ci géej gi mbokk yi kon loola mel na ni mu ngi noonu waaye gis nga ni waxoon na ni sababu ba yaa ràmmu réew mi sama tukki tumuranke gi bëgg ràmmu réew mi rek moo taxoon mooy tukki sama tukki bii waaye gis nga it nag dinaa la jox meneen misaal moo xam ni moom la sëriñ bi wax ni moo ko tax dem ci géej gi sëñ Habibullahi Mbàkke dafa neesale nee na sëñ Tuubaa da wax ni leen sama mbir de lu jiitu may dem ci géej gi ak bi ma demee ci géej gi ba ñëw soree na lool mu daane de lu jiitu may dem ci géej gi dafa mel ni nit ku ku ku xëy di doxe mën naa ko misaal sama bopp ak ci teraanga senegal ñëw ci tele bii di fi xëy si di liggéey si mel ni si Amadou Bambali wala sëñ Pape Thioune wala Soxna Anta Fall wala ñi fi nekk ñëpp di liggéey nga dajak sa mbokk mu xeeñoo parfum mu neex nga jox ko loxo ngeen accolante parfum ba des ci sa yaram des ci sa yére nga dugg si ci télé bi koo fi nuyu rek mu ne la yow de sa sëñ bi sa parfum bi daa neex may ma ci sëñ Tuubaa nee na ah aw ma parfum nee na tàqalewul ak nit ñi de lu fi sës xanaa wuti parfum bi jox leen rek neen lu tax lu jiitu may dem ci géej gi looloo ma daloon mooy li nit ñi yaakaar ci man ci sun borom faw ma wuti ko jox leen ko neen looloo waral ma génn dem tukki moo tax am na dem nee na sëñ Tuubaa daa wax ni i'lam bi anna lazina taxalluqu bi law laa taxalluqu bi la doxalu naar ba'da mawti wala muddatan xabla duxulihimul janna ñi aju ci man budul woon aju gi nga xamante ni bii aju nañ ko ci man nee na ñoom ñëpp safara lañ jëm donte ab diir dañ ko fa def waaye mu teg ci ni wa sababu xaybatil baida al mubaraka wa na sababa xaybatil baida sama tukki bii nga xam ne tukki woon naa ko mu nekk tukki bu sori te yàgg lool te metti lool inna allaha tabaraka wa taala arada fil azal an akuna shafian li jamii talamisati nee na yàlla suñ borom mooy dogal te yàlla suñ borom dafa dogaloon ci azal ni man ahmadu bamba mii maay ramm sama sama taalibe yépp bu yomal xiyaamee maa leen di ramm waaye waxaala bayni wa bayna nasaara nee na mu dox nag sama diggante tubaab bii li fi xew xew fi waaye nag waa daxalal fi xóolu bi mu xaw ful nee na yàlla sax nag sànni ci ñoom ak li ñu bari bari kattan ak pexe ci ñoom ñu ragal ma yàlla moo programmé loola. nee na min nii wa fanloo ma fanloo moo tax ñu def ci man li nga xam def nañ ko ci man liñ daj ci man yëpp ñu daj ko nee na yàlla sunu borom nee na nag yàlla sunu borom laay sant ndax moom su ma nekkoon na nasir su ma nasaraan woon. nee na danaa dugg safara wala yàlla si billaahi te su ma duggee safara ñoom ñëpp dugg safara waaye yàlla sunu boroom musal na ma ci loola nee na yàlla sunu borom asamanillaahu tabaarakata mina naar wa min kulli ma lam yor daa yàlla musal na ma ci safara waaye noonu la ma yàlla musal ci lépp loo xamante ni bi gërëmu ko ñu ne ko ci barket kan la ko defee mu ne ci barke bi jaahi rasulullahi sallallahu taala wa sallama bi aalihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk kon tukki baa ngoog naa ci émission bee mani sababu xaybatiya anna allaha arada an anala minhu jaaha wa an akuna shafian li xawmi wa an akuna shafian li xawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi sama sababu tukki bi yàlla moo nara a yëkkati sama daraja waaye ma nekk koo xamante ni bii dama nara a ram sama xeet ëllëg moo tax gis sëñ bi muy dem xeet yu la wax waaye bi muy ñëw xeet yu la wax bokk juróom benn yi lay taxaw gisoo ma nettali fi fenn fenn fenn foo xam ni nee naa tubaab yeeg rambaaj yeeg jaxase xeceeg convocation yeeg yëpp lépp rek moom sëñ Tuubaa moo feeñoon am yéenay liggéeyal Moustapha sallallahu alayhi wa su ko defee nag sababu zahir yi moom dafay neexal waxtaan dafay neexal jataay mooy rek ñeent lay doon xam ngeen ni sëñ tubaa waxoon naa ci jataay bi passé ma ni bi mu sancee yoonu murit ni yaratuma ci njàngale kese waaye dama yeggale ci yàlla loolu nit ñi xamuñu ko woon nit yàlla xamuñu woon loolu dama yeggale ci yàlla xamuñu woon loola moo tax booba doomu sëriñ si yépp nag mujj nañ koo iñaane di ko soxore bi ci des mooy cedd yi fi nekkoon ak nasaraan si sedd woon réew mi yilif ko not nit ñi moom mu ne ñii li ñu indi duma ca bokk man yàlla lay jaamu muhammadu rasulullah rek mooy doon sama kilifa sallallahu alayhi ñetteel ba mooy rambaaj yii rambaaj yi nasaraan bi booba Merlin fédéral bu lëkkalek ñoo fi nekkoon ci réew mii moo tax gis nga ñooñu jaruñoo tudd lii nag muy ñeent yi ma wax bi mu demee ci géej gi ba ñëw sëñ Mbay Jaxate da ko ndokkeel wax naa léegi Cheikh Sadou Abi ndeysaan bi sëñ Tuubaa demee ci géej gi ba ñëw daa waxoon ni man de du ma ndokkeel kenn du ma ndokkeel kenn ñu ne ko koy ndokkeel mu ne lislaam lislaam am ndam ndax sëñ Tuubaa Cheikh Amadou Bamba lislaam a ko taxoon dem ci géej gi ni an bi di maa ngi ndokkeel diine ji nga xam ne daa tumaranke woon waaye ndeysaan lii ma la wax ci ñeent ñi nga xamante ne bii ñun ñi waxtaan ñëpp ci ñeent ñi lay wax mooy rambaaj lañ ko defoon nag bañ ko jaxaseeg tubaab beeg doomu seeg ña ko ñaani woon moom sëñ Mbay Jaxate bi mu ñëwee bi mu koy ndokkeel dafa wax ni sëñ Tuubaa daal yàlla defal na ko lu rëy rëy rëy kon man danaa ko ndokkeel te mu dem na liggéey ba ñëw te ñeent ñi mu fi bàyyi woon ñëpp lañ bëggoon amut ñeent ñooñu man danaa ko ndokkeel dinaa jël sama xalima jël sama ndënd mi wax ca kaw ñëpp dégg daal wax waxam ju xoromu jooju mel ni kuy bàkku ma gàddu bu wér man ba géwél sama ndënd mii te kañ nag Serigne Touba ki xëy boole ñëpp daan ba fóoree ki kaang ñépp ne jàng fi jariñ mu seexal ku jàngul orof ñu ne moo fi daan ba buur yi wala fit ne lii ñu yor ko ko bañ du wéy mu teggalee nag seen yëf ñu ne moo fi daan ba ñooñ yàlla yi nii lii ñu yor ñun bunt yàlla yi ñoo ko yor ba ñooñ yàlla yi ne buntu yàlla yi ñoo ko yor mu dox ko kenn foogul ñu ne moo fi daan ba buuri tubaab it ne lii ñu yor ko ko bañ juwee mu yëm mu ne garfirit yëpp rëcc ñu ne moo fi daan ba buuri tubaab it ne ñu mos waa ji ñoo ci des mu yëm mu ne garfirit yëpp rëcc ñu ne moo fi daan mu xëy déglu déggul fenn kuy baj bajee ka bañ mu ñibbi këram ndaa naana ngoo gi lu yàgga daan kon ndaanaan dëgg nag mooy Cheikh Ahmadou Bamba borom 18 safar waaye borom shahru safar borom weeru safar kon nag mbokk yi xam naa buñ del siwaatee insha allahu rabbi taala dañuy ànd ak yéen ci marxala safar ila Gabon sëñ Tuubaa ni mu génne Mbàkke Baari ba ni mu demee Gabon xam ngeen ni Mbàkke Baari jeewal kokki Louga Ndar Ndakaaru biir bato bi Conakry Karambasa Dawme Libreville Matadi Montagne Sainte Mayomba Bafali ba ci Lambaréné ba ci Galwaa foo fépp rek fu ci ne maris na faa taxaw dafa émission ci Sëñ Tuubaa waajale ko màggal gi ci Teraanga Sénégal TV su ko defee ñu ngi leen di ziar di nuyu ñëpp di waaja dalal nag sunu kilifa gu am solo moo Modou bay Samb soldaaru Sëñ Tuubaa incha allah dina ñëw fii ci Teraanga Sénégal incha allah ñu séq nag weeru safar séq màggalu Sëñ Tuubaa gi waaye di ziare nag suñu mbokk masal ku jëraan suñu daayira bopp nga xamante ni bi at mu jot dañuy tànn benn bis ci weeru safar muy le vingt cinq août ca buntu kër Isaaxa Kanté dafa defee safar gi ñu ngi ciy woo ñëpp incha allah rabbi taala seen mbokk Alioune Mbaye la woon ci seen émission xayaat euh, Cheikhul Khadim dunduk sëriñ bi waaye nu waajale ko màggal gi ñaan yàlla sunu borom yóbbu ñu ceeg jàmm ba lépp loo xamante ni bii nit yéene na ko ci santale sëriñ Tuubaa yàlla ci bésam bi nga def luy kawe ca njot wa xayru wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu يجود للجواد بالديان حصايات الأبرار بخير معجزة بان لحسن خير يجود للجواد بالديان حسن آيات الأبرار خير معجزة بان لحسن خير يجود للجواد بالديان حسن آيات الأبرار خير معجزة بان لحسن خير الجود للجواد بالديان